ko defee nag comme niñ ko waxee woon rek monsieur le président altine lundi incha allahu rabbi ñu ñëw liggéey waxtaan nañu ak le secretaire général de la mairie monsieur jaawara tout est calé bi moom ñëpp xam nañ ko géejawaay ni affaire bi demee woon jàpp leen ne ñëpp ak ñuy xaar lu ci waay jàppoon tamit nga daal di koy dolli. ñu booloo nekk benn liggéey suñu gox bi nga xam ne ñun moom lañ am di géejawaay comme ni ko Omar Seck waxee sant tam njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma bokk fa doomu géejawaay yi nekk bitim réew jàpp nañ ci jàpp boo xam ni buñ ko fi doon expliquer di ngeen ne ndax ndekete ñooñu doon nañ bàyyi xel gërëm nañ waa diaspora bi doomu géejawaay yi nekk bitim réew même ñu nekkul doomu géejawaay sax te déggoon na ñun ñu ngi ci li géejawaay nit ñu sotlee bu ma neexee ma waxee ni ëpp na kon ñooñu tamit Mor Diaw moo ngi nii nekk témoin ñu boole waale leen ci bu baax a baax a baax waaw loolu daal tey moom moo nekkoon message bi nga xam ne moom lañ doon livré hmm? waaw bu ko defee nag kon ñoom moom gërëm nañ leen sant nañ leen bu baax di waa diaspora bi waaw ñu leen di woowaat encore une fois ma répété waat ko rek au travail waaw bu ko defee nag gars yi li ñuy xaar daal mooy la rupture waa waaye dafa am lu fi nekkoon ñu ne ñoom loolu gënalu leen yéen waa Yewwi yéen lañ bëgg kon ñun bu ñëwee waxuma sax nañ leen def ñi fi nekkoon liñ def waaye dama bëgg ngeen tripler ko wala ngeen romb ko sax di dem ba gaa yi nekkoon kon mën nañ lii. te loolu yaakaar naa ne bu ci administration bi jàppee mooy les agents ñi nga xam ne tam ñoo nekkoon sur le terrain mais surtout les conseils ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp.